العبادة والخدمة لجامو xidma di jaamu yàlla أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله بكي العبادة والخدمة سين بكم طالبي ما لن دي جوتلي أمنيو ينيبو di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fas yéene ñëw ak yéen ci ndénkaane yi borom tuubaay ndénkaane bi ñu indi tey sëriñ bi dafa waxoon ne na ngeen moytu tooñ ndax tooñ kat dana waral yeenti mbir dana xañe soppum yàlla dana xañe njubalum yàlla dana xagne ndimbalul yàlla dana waralit mbugalum yàlla tek ci wal iyaadu billahi taala ne ana nu xagne xañee xagne sopum yàlla wallahu la yuhibbu adh-dhalimin ana fu xagne njubalum yàlla wallahu laa yahdi alqawma alzalimin ana fu muy xañee ndimbalul yàlla وما للظالمين من انصار انا فمي ورالي مبغلوم يالا انا من المجرمين منتقمون يالنا يالا ديفال اك دغ اكو توب اكو جيرينو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته